ah. mbaam mi jaxate noonu sonko bu mag bi. barki yàlla comme Ndiaga Ndiaye bu mbëg karam gi karam gi comme déggum noor rek. wala Serigne Sall bi ak cam. mbaam mi jaxate bon na. nga ba waa deem yi def ak tuñam yooyu mel ni takku suukar. kan bon ak jantal kay kenn mënu koo boole moom bon ak jantal déet déet ci àddina boo bonee ke da ngay ñaaw force ngol-ngol nag paa ngol-ngol paa ngol-ngol paa bu bàyyi faraay double foo yi mi tàkk bu ko bàyyiwul ak sëriñ baa dina def léegi waaw boobu balaa ñëw ci émission bi day jàmm ba ne fap ñëw di fenn rek ngay bàyyi ko boy patriote rek dina déet <laughs> <laughs> bàyyi nga ko bàyyi nga ko barki Serigne comme AC modèle yooyu rek. loolu mooy lu ah, dëkk <laughs> ba baax na. ah man affaire bi wax. man affaire bi daa tourné léegi. non dafa tuuti léegi booyee wax dëgg mag ñi fen. waaw <laughs> looloo ma jaaxal. yàlla noon lay doxalee ay mbiram mooy léegi ñuy wax dëgg mag ñi di meew. yàlla yàlla yàlla soppi mag ah, waaw amin. yàlla leen defal leen jàmm ñun xale yi ñu gën a yeew. amin ba taxaw si lu réew. ba changé lu bare bare ba sunu njaboot yi war a ñëw. waa léegi waa léegi booba gars yi gars yi leen doon leb fuñ ci tool. awoon na gars nañ